subhaanaka laa ilma lanaa illaa maa allamtanaa innaka anta al-aliimul hakiim allahumma salli alaa sayyidinaa muhammadin al-faatixi limaa ughliq wal xaatimi limaa sabaqa naasiril haqqi bil haqq wal haadii ilaa siraatika al-mustaqiim wa alaa aalihi haqqa qadrihi wa miqdaarihi al-aziim wa radiyallaahu ta'aalaa an ashaabi rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam wa laa hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim yaa himmata cheikh ixdari lana bi hada almaxdari wal taatifi bi nadratin tati lana bi zawar rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit fu ñu mën ne ci àddina bi ñu ngi nuyu ku nekk ci turam ak jëmmam di dellu si ci suñu fàttaliante ak barkeelu ci sunna si Mawlana Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu ci koor ci jàngaleem ci saxiwul Buxaari ci bunt bii nga xam ne mooy kitaabu sawm euh, ñu ñëw tey ci benn bunt ci bunt yooyu noonu mooy baabu rayyaanu li saaimin lii moom la ñuy wax buntu bu ñuy wax rayyaan mu ñeel ñi nga xam ne ñoom ñooy or mu ne xaddadanaa xaalidu bun maxladin xaddadanaa suleymaan bun bilaalin qaal xaddadanii abu xaazimin an sahlin radiyallahu anhu an innabi sallallahu alayhi wa sallam qaal inna fi ljannati baaban yuqaalu lahu rayyaanu yadxulu minhu saa'imuuna yowma alqiyaamati laa yadxulu minhu axadun gayruhum yuqaalu ayna saa'imuun fa yaquumuuna laa yadxulu minhu axadun gayruhum fa idaa daxalu uxliqa fa lam yadxul minhu ahadun mu ne jëlee nañ ci Sahal radiyallahu anhu mu jëlee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi wax ne aljana am na benn bunt boo xam ne ñu ngi koy wax rayyaan rayyaan la tudd rayyaan nag baat bi dafa dëppoog li nga xam ne moom mooy aji or mar gi mi mar xam nga ki or li koy gën a sonal mooy mar te ray ci baati maam naan am na benn sax euh, riwaaye boo xam daf naan suñu duggee ci bunt bi dañuy naan te buñ naanee dootuñ man dootuñ marati mukk am na riwaaye boo xam ne loolu andi wala turi bar bunt bi sax boo ko déggee dafa dëppoo kee xam ne dafa oor xam ne mar daf koy sonal moo tax mu ne bunt boobu noonu ñu koy wax mu ne ñi nga xam ne ñoo ñooy oorkat yi bis penc ñoo ciy dugg kenn dugg ku dul ñoom ci bunt boobu noonu aji oote dana taxaw oote ne ana orkat yi ay na saa imun su boobaa gars yi jug taxaw mu ne suñ duggee nag kenn du dugg ku dul ñoom te ñoom buñ xasee dugg rek bunt bi dañ koy tëj keneen du ci jarati sallallahu alayhi wa sallam mu ne xaddadanaa ibrahim bin munzir qaala xaddadanii maan qaala xaddadanii malik an ibni shihabin an xumayd ibni abdirahman an abi hurayrata radiallahu anhu anna rasula allahi sallallahu alayhi wa sallam qaal man anfaqa zawjayni fi sabilillah nuudiya min abwaabil jannati yaa abdallahi hada xayrun fa man kaana min ahli salaati duiya min baabi salaat wa man kaana min ahli sadaqati duiya min baabi sadaqa wa man kaana min ahli siyaami duiya min baabi riyaan wa man kaana min ahli sadaqati duiya min baabi sadaqa fa qaala abubakar radiyallahu anhu bi abii anta wa ummi yaa rasulallah maa ala man duiya min tilka al abwaabi min darura fa hal yudaa ahadun min tilka al abwaabi kulliha qaala naam wa arju an takuna minhum li bëgg a wax foofu mooy mu ne solo nañ jëlee ci abi hurayra radiyallahu anhu mu ne yonent na sallallahu alayhi wa sallam wax na ne man anfaqa zawjayni fi sabilillah ku dundalee ñaar zawjayni nag bu ñu ko waxee fay mel ni tey dañuy wax paire maanaam tey nga dundale ñaari dirham wala ñaari xar wala ñaari nag wala ñaari gilam lu mel noonu ba nga xam ne sax am na yoo xam ne ci borom xam-xam wax ne sax ba ci julli nga def ñaar raka loolu yëpp ci buntu zawjayn ñi la bokk mu ne képp koo xam ne da ko koo dundale ci yoonu yàlla fi sabilillah borom xam-xam yi am na ñoo xam ne dañuy wax ne mooy ci jihaad waaye dañ ne bépp mbaax rek dañ koy wax ne fi sabilillah ci yoonu yàlla lañ koy wax mu su boobaa nag aji oote dafay taxaw di oote ci buntu aljana yi aljana am na juróom buntu buntu bu nekk am na ñoo xam ne ñoom rek ñoo ciy duggee mu ne su boobaa dafay taxaw ne yaa abdullahi hada xayrun e yow jaamu yàlla bi mu ne ah koy wax ne ko lii de yiw la woo xam ne wu rëy la wu bari te yow la ñaal jublu si ñëwal ñëwal su boobaa nag mu ne ñi nga xam ne ñoo nekk ñooñ jullikat ñooñ jullikat nag bu ñu ko waxee fii namul ci ki nga xam ne dafay julli farata rek am ci déedéet ki nga xam ne moom dafa melowoo di naafila ci julli lu bëree bëri su boobaa kooku la ñuy wax ne ñi nga xam ne ñoom ñoo jullikat yi waaye xam nga julli farata moom loolu farata la loolu fekkee ne moom si nga taxaw rek duñ la boolee si ñi nga xam ne ñooñ jullikat ngay mu ne su boobaa mu oote ne ana ñooñu jullikat yi gars yi jug ñu ibbil leen buntu ñi nga xam ne dañoo julli dañuy julli ñu dugg ci buntu boobu noonu. ñi nga xam ne tamit dañ naan dañuy saraxe lu bari ba xam ne sarax dafa nekk seen mbir bañ aadawoo loolu ñu oo ñooñu ñooñu tamit jug taxaw ñu ibbil leen buntu bi nga xam ne buntu bu ñooñu saraxe lañ ñooñ jihaat tamit ñu oo leen biñ leen ooyee ñoom jug ñu leen buntu boobu ñi xam ne tamit ñoom ay oorkat lañ oorkat nag buñ ko waxee waru oor na oor farata weeru koor kese déedéet taxawoo oor Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu dañ koy tooñ na ko yow yow doo bëri bëri woo looy or mu ne waaw dëgg la parce que moom dafa ndawoon te or daf koy sonal moom jàng alquran la gën a bëgg ci or waaye xoolal li ñu koy tooñ na ko doo or kat yëpp dafay or alxames ak ajuma dafay or alxames kon te ñu ngi koy wax na ko yow doo or kat nangu na ko kon or kat bi ñuy wax mooy koo xam ne yow danga ngaa aadawoo di or toujours su boobaa kooku dañ koy ooyee ci buntu boobu nga xam ne mooy buntu ñi nga xam ne dañuy or. bi mu waxee loolu nag Abubakar Sadiq radiyallahu anhu ni mu baaxee Abubakar Sadiq ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ah kooku de texe na koo xam ne dañ ko oo ci buntu yëpp maanaam bi ñu ootee ci buntu julli moom oo nañ ko ca bi ñu ci buntu jihaad oo nañ ko ca bi ñu ootee ci buntu sarax oo nañ ko ca bañ ootee ci buntu ji nga xam ne dañuy oor tamit oo nañ ko ca Abubakar mu ne kooku moom dara du ko lor mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko ndax da kenn ci mbooleem buntu yi yonent bi ne ko maa ngi yaakaar yow Abubakar nga bokk ci ñooñu xam nga yonent bi su waxee maa ngi yaakaar moom yaakaaram luy tabbi la bokkut ak ñun suñu yaakaar ñun suñu yaakaar moom mën naa ñëw tabbi mën naa ñàkk tabbi waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom bu waxee arju an rek mooy ne Aboubacar radiyallahu anhu si la bokk. waaye boo bëggee xam Aboubacar ngëneelam ci xeetu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gannaaw yonent bi dafa am benn bis daanaka li ñu jàng nii ci bunt yi yëpp dal na Aboubacar yonent bi dafa xëy ne ana kenn ci yéen koo xam ne tey moo xëy or Aboubacar ne man ala kenn ci yéen koo xam ne tey moo xëy saraxe awoo na man ala kenn ci koo xam ne tey moom moo xëy euh, seeti ku feebar awoo na man ala kenn ci yéen koo xam ne tey moo xëy topp néew maanaam dem gunge néew awoo na man yonent bi sallallahu alayhi mu ne yëpp dajee ci benn kenn lu may ne aljana ñeel na ko te aboubacar kon day gis ne ci xadis bi itim mën nañ cey jàngee ngëneel sayyidina aboubacar sadiq radiallahu anhu ci xeetu yontu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci gannaaw yontu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy ki nga xam ne moo gën ci xeet yu gannaaw yontu bi sallallahu alayhi wa kon nag dëgg-dëgg euh, xadis yi gàtt na waaye mën nañ cey jàngee lu bari mooy nañ góorgóorlu nekk ay jullikat nañ góorgóorlu nekk ay saraxekat nañ góorgóorlu nekk ay jihaadkat nañ góorgóorlu nekk ay oorkat nañ góorgóorlu nekk ay saraxekat yooyu yëpp buñ ci jël rek boo mënta jël yëpp góorgóorlu au moins nga jël ci benn su boobaa mën ngaa am tawfiq ba nga xam ne bu ootee ci buntu yooyu rek nga bokk ci ñi nga xam ne dangay uyu ci benn buntu ci buntu yooyu noonu yàlla na yàlla dëppale ñi lu ci sawaab ci njuumte yàlla nañu ko yàlla jégal te xamal ñu ko yàlla rek mooy aji xam ca dëgg-dëgg xam yàlla nañu yàlla xamal allahuma salli ala sayidina mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman alhamdulillah alhamdulillah alhamdulilah. abonné leen ci seen chaîne malben bu leen fàtte bës cloche bi ngir ngeen mën a am bépp xibaar bu aju ci wàllu faydu bi.